salaamaaleykum mbokk internet Iba Kane TV yi maa leen di nuyu di leen ziar di leen ziar si aljuma bi te ñu ñu toog nag waxtaan ça fait presque ay mois def ñu waxtaan entre Iba Kane ak internet yi di ziar ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm di wax ne làmb ji li ñuy gars yi di wax sàjj na làmb ji sàjj na parce que lu bare xew na fi suñu ginnaaw ah, bébé Diène gis nga bëri na fi moom ak gàpp 2 gis ngeen li si xew yëpp ñu jox victoire bi Bébé Diène par avertissement gis ngeen Zarko am na fi ndam waaw Zarko am na fi ndam bu rëy waaw moom ak Ada ba Zarko ñu suspendre ko moom ak euh, Ada un an ba yàlla def Zarko encore jëlaat combat moom ak moom ak Diène Kaïré mu nekk komba boo xam ne vraiment combat bu neex combat bu am solo te yaakaar naa suspension Diène Kaïré buñ ko euh, Zarko buñ ko levé moom ak jën kayre yaakaar naa amul affiche bu ko ne dàq li ñuy ñaan rek mooy combat bu mënoon am si saison bi vraiment bu si saison bi jën kayre ak ak Zarko noonu làmb ji day wàcc mais pour mu am dina xam naa ne dina xaw a jafe trop trop trop mais Ibulaay comme que moom moo ko tëgg yaakaar nañ ne dina si def ay jéego yoo xam ne dina jéem a tëgg combat beneen parce que combat boobu vraiment ren lañ ko soxla parce que bu ñoom ñaar bu ñu bëri woon jën kayre ak Zarko rek dafay ubbi làmb boo warul nekk combat yi nga xam ne day yàgg-yàgg ba yàq parce que loolu moo dal Ama Baldé ak Modou Lo combat ñu tëgg dix deux mille dix neuf ba deux mille vingt trois mënul am looloo ko yàq combat yi warul yàgg yàgg-yàggaay yooyu ensuite ñu ngi jëm si si si si événement bu mag waaw événement boo xam ne tey Sénégal yëpp yëpp yëpp moom la ñuy xaar muy diggante rëg-rëg ak Sa waaw muy diggante rëg-rëg ak Sa muy am la dimanche 5 mars fii si arène nationale Gaston Mbengue moo ñu fa woowaat mu nekk combat bu am solo trop si carrière ñaari mbir surtout pour Sa Thiès waaw Reug Reug nag li may wax rek Reug Reug mu ngi am adversaire Reug Reug mu ngi am adversaire bu am vitesse bu am gaawaay que Sa musul am adversaire bu mel Reug Reug lu muy ay ndam musul am dahan musul mi mu ngi door am adversaire à sa taille adversaire bi dafa gaaw Reug Reug bëri na ñu bare mais si mbër loolu rek moo ma jaaxal si combat bi Sa Thiès dafa gaaw te Sa Thiès du calculer mais saa combat bi dafa laaj calcul de combat bi fi nga jógee ak fi nga bëgg a àgg combat bi dafa laaj calcul gaaw nga mais gaawaay bi dafa ànd ak leneen leneen loolu nag yaa koy may sa bopp parce que ci ngay bëral di cuune ki ngay gaaw gaaw gaaw yépp moom mbër la moo xam ne mbër bu ñëwee intercepté intercepté la dafa mun a intercepté macha allah dafa complet te li ko gën a may complément boobu mooy dafa nangoo jóge fii jàkkaat leneen yokk ko si ay bagages loolu mbër yi duñ ko def mais Reug Reug daf ko xaru lu mot ñetti at ñeenti at moo ngi dem en l'extérieur di gën a perfectionné wu surtout le plan de la bagarre surtout plan xeex boo xool xeexu Reug Reug léegi dafa ñor Reug Reug xam na nu ñuy jëlee coup xam na nu muy joxe coup xam na nu muy intercepter coup te xam na tamit nan la mbër ak noo toll nooy songee booy ñuy xam na nu mu lay intercepter moo tax mu nekk combat boo xam ne vraiment macha allah amul affiche bu ko dàq ren si saison bi ñuy ñaan yàlla rek yàlla ñu si yàlla yóbboo ak jàmm rëg-rëg victoire bi da ko soxla parce que dafa am fu ko yóbbul parce que rëg-rëg bu daanee amul mbër bu ko mun a bañ Sénégal day fëgg buntu Modou par force buntu amabal de par force buntu Boy de par force buntu ñi nga xam ne tey ñoo téye lamb ji rëg-rëg seen kaw la jëm mais tey bu Sa Thiès amee ndam tamit Sa bu boobaa ñi daanoon Balla Gaye yëpp Sa Thiès day ñëw seen kaw ñooñu ñëpp boo Sa Thiès da leen demande revanche Bombardier daan na Balla Gaye deux deux fois mais su Sa Thiès su ko neexee taxaw na dan revanche ak Bombardier Eumeu eh, Sène daan na Balla deux deux fois su ko neexee Sa Thiès taxaw na bëgg na Eumeu eh, ki nga xam ne kan moo daanati Boy Niang 2 dan dan daan ki nga dal ki nga xam ne moom mooy Sa Thiès su ko neexee sax laaj bien que loolu du yomb parce que Sa Thiès boobaa il faut mu defar ay yoon yoon pour mun a amaat Boy Niang 2 parce que am Boy Niang dina xaw a jafe loolu parce que gis nga fi mu dal dem na si Modou moo tax pour Sa Thiès bu daanee Reug Reug pour mu amaat Boy Niang loolu si année yi si kanam kanam la mu nekk boo xam ne daal victoire am na fu mu lay yóbbu combat la boo xam ne nag Sa Thiès ñëpp xam nañu gaawaayam Sa Thiès ñëpp xam nañu day attaque Sa Thiès ñëpp xam nañ day ñëw mais Sa Thiès sa point faible mooy sa attaque ni ngay attaqué baaxul mën nga bëgg nga attaque mais ni ngay attaqué baaxul làmb ji dafa laaj calcul làmb ji dafa laaj tee làmb ji dafa laaj tekk làmb jii dafa laaj round d'observation mais ndox du bàyyi yoonam mais est di nga def ñett yooyu ma la limal ñett yooyu est di nga ko def round d'observation est-ce que doo jël suuf rek ci kaw rëg-rëg boo demee loo fay fekk te defet baaxul si yow seen kër temps yi neexul parce que Balla Gaye daanu na te boo daanu waatee loolu baaxul si yow fi nga jógee fi nga waroon àgg boo ñaamoo la ko xañ jël nga Moussa Ndoye combat boo xam ne da si doon defarwaat rek mais yow xam nga ne sa yoon du foofu mais pour nga àggaat yoon bi nga bëgg mooy nga il faut nga daan rëg-rëg avec la manière nga dugg si histoire si sa tur dootul fay bu maa njëkk daan rëg ko xam ne depuis bu mu ñëwee si lamb ji ba léegi mënul am defet 14 200 verdict nga daan Elton regre rëg ni mu ni mu def Elton Elton nu mu diisee Elton nu mu mel Elton nga xam ne nu pour nga pour nga daan ko dafa jafe ñi ko fi daan mun nañu bëri moo bu mu ko ba Elton da bàyyi làmb si la dem yoonam kañ ngeen bi gis Elton takk ngeemam parce que rëg-rëg nu ko humilier moo ko neexul regre rëg fi jël Gris jël guy ah tegale si ay ndam ak façon bu ku nekk ak façon bu mu lay daanee donc ku mel noonu booy bëreek moom da nga war a jël toutes tes dispositions parce que Reug quoi qu'on dise Reug Reug mooy favori ci combat bi lu tax mooy ma ne mooy favori parce que Reug Reug jamono ji moo gën a baax ay performance que Sa Thiès Reug Reug ci ndam la ay ndam la toog Sa Sa Thiès dafa jóge ci tolof tolof daan Moussa Ndoye te gëj na bëre te Reug Reug mu ngi bëre fii mu ngi bëre fële donc tey booy jël favori da nga koy jox Reug Reug mooy favori mais favori ça veut pas dire que Reug Reug mooy daan Sa kii daan yàlla rek ko xam mais Reug Reug mun na daan Sa Thiès avec la manière que Sa Thiès mun na créer la surprise de la saison daan Reug Reug avec la manière gaawaay boobu bu ko am na gaawaay boo xam ne bu ko andilee bu ko tegalee safara ki nga xam ne mooy Reug Reug mun na si am lu ne bu ko tegalee safara mais dafa am yoon dafa am yoon nooy tegalee safara Reug Reug parce que Reug Reug du mbër muy xoy xoy muy tiit dafa am nooy def combat bi dafa am fu mu leen di yóbbu combat bi dafa am ay millions yu mu leen di andil combat bi dafa am ay bunt yu mu leen di andil ñuy ñaan rek yàlla yóbbu ñu si ak jàmm que le maire gagne mais Sa Thiès bi du combat booy ñàkk mi bëgg nekk des arènes boo ñàkkee combat bi sa yoon dina parce que gars pour ñu jël la yow xam nga ne dafa jafe pour ñu jël la jafe Sa sa yoon neexoon na ñëpp la tegoon àggoon nga sommet mais booy ñaam moo la andiwaat sur terre moo tax defet ba waa waratu la donc ñu ngi jëm si combat boobu le 5 mars yàlla na si yàlla yóbbu ak jàmm mënuñu jeexal te wax ñu si Tapha Tine Bombardier li fa amoon le 12 février je pense la la woon li fa amoon neexul kenn li ma fa gis rek lu ma si naqaree mooy foofu amateur rek a perte amateur moo tagg billet bu cher te seetaanu li ko fa andi est-ce que seetaan na Bombardier ak Tapha Tine bu mu àgg mbër bu blessé lañ fa gis mu dem donc. lu ñu fa andi woon amuñu donc loolu toujours lu may wax rek mooy amateur mooy perte lu tax ma ne amateur mooy perte xoolal Alioune Seye ak ñax ñàkk jëriñu xoolal bu mu amee woon stade Arène Nationale xeex ba am fa kan moo ñax est-ce combat am na lu ñu fa andi woon amul seetaanuñu ko Siteu ak ak Papa Sow amateur moo ñàkk parce que amateur bi bu ñëwoon jour boobu pour seetaan si Siteu ak ak Papa Sow amul ba pare ñu dëggaat combat bi amateur dëggaat bii pour mun a seetaan combat boobu. Et je pense que parfois, euh, les promoteurs doivent rembourser les, amateurs parce que c'est un khalis. Surtout PPV, le nous nous Nous avons fait des c'est mais rien ne rembourser. Nous rembourser. C'est logique. Les amateurs toujours moins perte ces combats. ont une disposition. ils ont disposition amul won lu ko dax lépp neex mi amul xolal Tafa Gueye ak Baboy bi amoon euh, stade Demba Diop wër ndom bi si ginaaw combat bi amul xolal Nes ak Baboy Baboy war affiche bu amul won lu ko dax est-ce amna ak yenen ak yenen ak yenen toujours c'est l'amateur mom moy perte si événement yu mag yoy bu amé ñuy ñaan rek yoy bu amaté surtout bu peu peu diaspora bi ñi nga xamné ne ñoo nekk extérieur lañ leen di rembourser seen xaalis donc tamit tafatin. am na ndam si Bombardier mais ndam bi c'est un ndam boo xam ne dafa des bëggee wu ko woon nii dafa bëggoon ñëw jëflante Bombardier Bombardier daan ko wala mu daan ko mu jël revanche am loolu lañ doon xaar si Tapha mais tafaatin am na ndam mais fan la jëm Tapha fu mu jëm fenn kese la Tapha Tine fi nekk di xaar Modou Lô Ama Baldé Boy ñaa ñoo xam ne xamoo kay la ñuy donc li ko war mooy bu gisee promoteur bu tëgg digganteem ak Lac de Guiers 2 bi ko daanoon en 2007 mu jël ko ñu ñu benn yoon ñu laale Lac de Guiers amul combat bu ko gën a logique donc loolu il faut mu am Tapha Tine munoo dem sa yoon laaloo ak Lac 2 Tapha Tine dafa ñor xomm dafa ñor xomm gars yi nañu bàyyi dakkantal bu ñuy dakkantalee Tapha Lac de Guiers 2 que ne dafa soofal bëre day tëj bëre combat bu mu bëre day ñun ku bëgg daan euh, Lac da ngay teel a yeewu. ñeme lu muy def Lac de Guiers 2 nit la comme ñoom munuñ mun mun nga ko daan jëmal dama nga daan ko est que yow yaa war a def noo koy daane moom loolu la andi yow andi lu koy daan tafaat Lac de Guiers 2 amul lenn lu ñu koy war a reprocher boo koy reprocher mooy dafa war a gën a investir ay millions yu nga koy fay si public am public boo xam ne day ñëw stade bu jour boobu pousser ko à la victoire public boobu bu ñëwee Lac de Guiers dinañ ko pousser à la loolu la Lac de war a gën a investir si public mu ñëw beneen bi mooy guy gi guy gi waroo nekk jibi direct di xaar il faut nga ñëw laale xale yi il faut nga ñëw parce que li nga wane contre Reug Reug keroog baaxul dara baaxul sur le plan physique il faut nga defarwaat ñëwaat Zos gis ngeen ñëwaat na Zos moom ak euh, Zos am na fi combat Zos kanati la sax Zos dafay bëre moom ak Ada Fass Zos Zoss tamit sa candidature nga nekk munoo am treize victoire treize défaites ñëw bëgg amaat quatorzième défaite loolu munul nekk Ada Fass népp ñee nañ yow la da nga waree woon ne war ne man la combat bi boo ko ñàkkee moom ah gisuma la mbaaw combat la boo xam ne da nga ko war a gagné mais yaa ngi bëre koo xam ne un vieux roublard la koo xam ne peut-être bu defarwaatee du ko naqaree bëre la physiquement peut-être il était court contre Alioune Seye bu muy ñëw gisuñu fa lu ñu lu ñu fa parce que combat boobu mënoo ko analyser benn songoo wala mu jeex ñu jox victoire Alioune Seye mais Zoss mi ma xam bu defar waatee ak roublardisme bu mu nekkee mun na inquiété kii bi Ada Fass donc combat yaa ngi noonu mënuma jeexal tamit te waxuma si Alioune Seye 2 Alioune war nañ ko jox combat Alioune Seye 2 mënu fi toog moom tamit di xaar ba léegi il faut que Alioune am combat ki nga xam ne moom mooy tonnerre tamit gis nga jéego yu muy daan Tidiane Faye daan daanaat euh, am mujjee woon di jóge defet si Dame Sène donc gis nga victoire bu mu jóge victoire bu am solo donc moom tamit mu ngi ñëw mu ngi defaruwaat di ñëw nañ ko bàyyi xel tonnerre ñu ngi dox ko maam ak jé ak bébé jën mu nekk affiche bu neex bu nekkee bu nekkee am na tonnerre tam mun na bëre ak ñeneen ak ñeneen donc combat yaa ngi noonu daal saison baa ngi noonu ubbeeku na di ñaanal encore une fois de plus Seigne Modou Niang bi ngi génn aduna le 28 janvier 2023 yalla xaré ko aljana parce que moom tamit industrie la woon si lamb sénégalaise parce que tey moom moo doon pourvoyeur d' emploi yi nga xam ne mbër yi nga xam ne tey amuñu woon combat pendant plus de 20 ans Seigne Modou Niang moo leen doon jox combat plus de 20 ans chaque année yaay nekk numéro 1 boo nekkul un yaa ngi 2 wala yaa ngi troisième te la plupart du temps moo doon jël premier si si si si bilan yi ñu def donc kooku bu génnee aduna lamb dina ko sentir journée yi dina xaw a wàññeeku parce que sëñ Modou Niang euh, promoteur la ba nga xam ne da doon jox ay mbër ay ay ay combat ñuy wax nag ñi nga xam ne tey ñoo yor euh, ki nga xam ne structure bi muy ñoom ndooy muy ay doomam ñu fexe ba jëlaat flambeau bi di tëggaat ay combat donc maa ngi leen di jox rendez-vous prochainement si beneen numéro le 5 mars diggante Sa Thiès ak Reug Reug que le